itam yéen koy dégg noonu kon li nga xam ne moo di eh, seeni eh, kàddu kon gis noonu à les images euh, fii itam ñuy xaar rek euh, voilà kon mu ngi noonu mu ngi fii nga xamante ne moom mooy di fii ci Amady Unaare euh, fii itam gis ngeen mbooloo mi nga xamante ne moo fi génn ngir gàttandu ki nga xamante ne moo di le président de Pastef Ousmane Sonko. ngir gàttandu ki nga xamante ne moom moo di la tête de liste nationale de kon euh, mu ngi noonu Ousmane Sonko ngi nii ci biir oto bi nekk suñu ginnaaw ñuy xaar d'un moment à l'autre ndax dina génn wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi comme ni mu koy defee ci yeneen dëkk yi nga xamante ne yëpp euh, moom la ñu làmb kon mu ngi noonu askan waa ngi noonu di ko réclamer euh, fii ci Amady Unaare kon mu ngi noonu fii nga xam te fii la ñu fii ci voilà dugal damay damay jël son dugal. sant leen bu baax seen bopp ci mobilisation exceptionnelle à cette commune de partout on est passé génn nañu bloqué convoi bi nga mën leen nuyu président Ousmane président Ousmane Sonko génn na mu ngi noonu toog ci kaw oto bi ngir saafandoog ñi nga xam te ne ñoom ñoo di askanu Amady Wunaare bokk ci depp wala bokk ci li nga xam moo di ci commune bu Orkadiéré kon mu ngi noonu bu ma juumul ci biir commune bu Orkadiéré la bokk bu ma juumee itam ngeen rectifier voilà.

yi ba tey foofu ca Kanel. di wax rek di président de ci wax normalement dañu waroon taxaw rek tàllal loxo saafante joxante rendez-vous demain à Matam est-ce ndax fii taxaw bu ñuy wax phosphate de Matam fii moo tax est-ce que bëgg ngeen xam lan la président Bassirou Diomaye Faye fas yéene def ci phosphate bi ba phosphate bi doon njëriñu waa Amady Kounaare doon njëriñu département de Matam waaye département de Kanel doon njëriñu région de Matam bi doon njëriñu senegal yëpp kon loolu waxtaan bu yaatu la bu ñuy def demain au grand meeting de Matam incha allah ku ko mën na ñëw ku ko mënul na connecté seetaan parce waxtaan bu am solo kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant fii nag ki fi nekk maire maire dëkk bi. yàlla dafa yàlla dafa def <laughs> waaw may ma rek ma daaneel dama ne ki fii maire yàlla def na nag ñoo bokkoon impôt sama grand la sama grand ñoo nekkoon impôt waaye nag malheureusement boor bi mu féetee du boor bu baax bi malheureusement il est hors ndax l'avenir de ce pays le présent ne peut pas être représenté par Amadou Ba bi nga xam ne pendant douze ans nekk na fi responsabilité bu ne te andiwul résultat ci Sénégal kon yéen waa Amady Unaare war ngeen ko woon moom ni nekkul de du bon côté mooy lan mooy le 17 novembre il faut que Amady Unaare vote majoritairement minimum à 70 pour cent. journaliste de Pastef di jox Diomaye majorité absolue mu doxal ci cinq ans di ñëw je vous remercie asalaamaaleykum maa ngi félicité bi nga xam ne yàgg na ci parti bi voilà doyen Sidibé jox bi voilà kon mu nekk euh, rendez-vous demain à voilà kon mu nekk kàddu yi ki nga xamante ne moom moo di le président de PASTEF Ousmane Sonko euh, fii ci commune bu Amady Unaare kon euh, kon Amady Umaare Amady Unaare commune wala kon loolu mooy kàddu yi nga xamante ne moom la fii le président de PASTEF Ousmane Sonko euh, yëkkati kon comme ni ngeen ko déggee noonee. à travers li nga xamante ne moom di les images waaye itam waaye itam voilà kon mu ngi noonu instant bi ñu ngi au cœur du Fouta comme ni ngeen ko gisee nii euh, fii mooy